أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala nuy jël tey ñeenti aaya aaya 104 105 106 107 ñeenti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal juróomi mbir mbir yooyu bi ci njëkk mooy ayatul quran basair man yaxuzu biha aaya yi di alquran di kàddu yàlla tabaraka wa taala nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent gis-gis la ci képp koo xam ne da nga koo téye maanaam lumière la buy leeral ku bëgg a gis ku nekk ci lëndëm moo tax mu ne aaya alquran yi gis-gis la ci ku bëgg a gis nag ndax ku gëmb say bët lànk kaste say jumtukaay yi nga war a xamee yépp alxuraan mënalu la dara lan la nu yàlla bëgg a wax foofu mooy ku bëgg a jub alxuraan moo lay jubal ku bëgg lu leer alxuraan moo la koy wan ku bëgg teg sa tànk ci dëgg ci siraatal mustaqim alxuraan ngay appuyé wu moo tax mu ne ayatul quran basair aaya yi gis-gis la boo xam ne ku ci jàpp rek daal di gis waaye kan mu ne man yaxuzu biha ku ngëpp ci alquran bi téye ko kooku la alquran mën a gindi jàngeen ci alquran yàlla mu ne innama tunziru man ittabaa zikra wa xashiya arrahmana bil ghaybi ki nga mën a waar dëgg mu waaru innama tunziru ki nga mën a waar man ittabaa zikra mooy ku topp alxuraan ku topp alxuraan moom soo ko waaree mu waaru soo ko fàttalee mu fàttaliku soo ko jàngalee mu xam soo ko wanee mu gis waaye ki nga xam ne yoonam nekku ci alxuraan sama fu gëmul sax alxuraan soo ne alxuraan nee na mu ne nangam nee na kooku kenn mënu koo wax ba mu gindeeku tey bokk na li tax tey ñu am problème mooy da ngay gis kuy tuddoo jullit te gëmul alxuraan loolooy problème di tuddoo jullit te gëmoo alxuraanul karim moo tax kenn mënu laa waar ba nga waaru kenn mënu laa fàttali ba nga fàttaliku mu ne yubsiru tariqa rasad moom waa jooju nga xam ne dafa jàpp ci alxuraan dafay gis yoonu njub day gis yoonu njub mbokk jullit yi ñun ñëpp bu yeboonu ànd xam ne kaw suuf mënuñu fee jub lu dul dañoo jàpp ci alxuraan mënuñoo am ngërëmal yàlla ci kaw suuf ëllëg yowmal xiyaam bu ñu demee yàlla kontaan ci ñun dugal ñu aljanna lu dul mbokk jullit yi dañoo gëm alxuraanul karim moo tax mu ne basair man yaxuzu biha yubsiru tariqa rasad wa yanju wa yasad képp ku jàpp ci alquran ñetti mbir yi la lay alxuraan di defal bi ci njëkk mooy dalay teg ci yoon bu jub bi ñaareel da ngay texe ñett da ngay am ngërëmal yàlla ëllëg dugg aljanna kon ku ko gëmul nag ku ko deful ci sa kanam ñaareel bi mooy yantafiu bi tasrifi al ayat wa ma tahmiluhu min al hidayat al aamiluun la al jahiluun mbokki jullit yi alquran ñi koy jëriñu mooy ñi gëm aaya yi su leen alquran geestuloo ñu geestu su leen wëlbatikuloo ñu wëlbatiku su leen xoolloo nu xool su leen taxawloo nu taxawlu ñooñ ñoo mën a jëriñoo alquran ñoo ciy jëriñu yantafiu dana jëriñu bi tasrif al ayat wa ma tahmiluhu min al hidayat al amilun ñiy jëfe alquran ñoo ciy jëriñu alquran ku ko dul jëfe doo ci jëriñu léeg-léeg nag nga ni kuy jëfe alquran benn waay buy jàmm di naan ne la man de maa ngi koy jëfe ndax maa ngi koy naan fu ma toll borom subhanahu wa taala di wax walinubayyinannahu liqawmin ya'lamun danaa leeralal aaya yi nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfe borom bi nee na di ngeen fekk ñooñu ma leen di leeralal alquran ba mu leer naññ naññ naññ naññ ñu koy jël di ko dund di ko jëriñoo waaye alxuraan mënta jëriñ ku ko dundul ak ku mu mën a doon su fekkente ne téere bi pare woo pour dund ko doo ko jëriñoo ak koo mën a doon nag alxuraan ñëwul pour nekk téere bu ñuy takk wala nekk téere boo xam dañ ciy gisaane wala téere seet wala téere pittaaw déedéet alxuraan du téere boo xam ne daf dañ ciy pittaaw wala dañ ciy gisaane wala dañ ciy seetal ay nit wala dañ ciy defal ay nit ak xërëm alquran daa ñëw pour nu dund ko mu nekk téere boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko wàcce ci ñun pour nu dund ko loolu mbokk jullit yi dafa war a leer naññ naññ naññ ñu bañ cee am benn benn benn sikki sàkk ne téere bi daa ñëw pour nu dund ko ñetteel mooy bayaanu alxikma fi tasrif al ayat wa hiya alhidaya man shaa allahu hidayatahu dana njàng tey téere bii di alquranul karim yàlla leeral gim ko leeral faram-fànce ko ba mu leer nañ pour ñi bëgg a jub pour ñi yàlla namm ne ñii ñooy jub ñooñu téere bi bu ñu ko déggee rek dañuy jub jàngeen yàlla mu ne zalikal kitaab laa rayba fii lu mu ci teg mu ne hudan lil muttaqin téere bi amul sikki sàkk téere bi njub la ñeel ñi ragal yàlla kon ku bëgg a jub téere bi rek moo lay jubal bokk na ci sharia li muy tere mooy képp koo xam ne dangaa gëm ne keneen mun naa indi njub gu gën a baax njubu sayyidina muhammad yow génn nga ci lislaam su ngeen jëmee ci nawaaxidul islam xam ngeen nawaaxidul islam mooy li yàq ah li yàq islam dafa am loo xam ne boo jàppee ba pare boo ko defee sa njàpp yàqu na am loo xam ne boo wooree def ko sa koor yàqu na am loo xam ne boo ajee def ko sa aj yàqu na dafa am loo xam ne ci sa dund boo ko defee sa islam yàqu na te loolu ndeysaan ñu bari xamuñu ko moo tax dañuy rajaxe rek mbir yu bare bare bare soo ko defee rek génn nga ci lislaam yaa fi téye sa bopp waaye nekkatoo jullit bokk na ci képp ku gëm ne man lii ma nekk moo gën a baax li Muhammad indi woon yow génn nga ci lislaam képp ku gëm ne keneen indi na njub njub googu moo gën a baax njubal sayyidina muhammad yow génn nga ci lislaam sharia reconnaître la yow jullit nga boo jullee boo ajee màkk boo saraxee boo joxee ndogu loo mën a def islam reconnaître la ne yow jullit nga moo tax mu ne bayaan aaya yi dañuy leeral al xikma lan la lu tax fi tasrifil ayat yàlla di leeral aaya yi di ko faram-fànce du lenn lu dul al hidaya pour nit ñi jub moo tax yàlla di leeral aaya yi pour nit ñi mën a jub waaye ñun ñooy jub man sha allahu hidayatahu ku neex yàlla mu jubal ko koo koy jub kon ku njub ku jub bul bàkk bul yéem sa bopp yàlla la neex ci coobareem mu jubal la sénégalais ñaata million lañ hmm? 14 millions ñaata ci woor ñaata woorul ñaataay julli ñaata julliwul ñaata jub ñaata dëng ña cay woor yàlla la neex ne ñii danañ woor ñeneen ñi yàlla moo leen seetaan ñu asànku sunu borom dafa bokk ci ay ndogalam loolu ñu naan almashia mooy coobarewu ndeysaan yàlla leen saay mu seetaan nit mu seetaan ko su ko seetaanee nit kooku day alku waa jooju day jaar yoon boo xam ne du yoon bu baax waaye yàlla ci coobareem daf koy seetaan waa jooju daal di alku moo tax yàlla ku ko neex lay jubal ku ko neex mu daal lay seetaan nga daal di sànk dana jàng ci aaya yi tey mbokk yi wujub ittibaaul wahyi al mutamathil fi lkitaabi wa sunna annabawiya dana jàng tey ne dafa war ci ñun góor ak jigéen mag ak ndaw soo waxee ne jullit nga nga wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dana war ci yow nga topp waxyu lan mooy waxyu mooy alquran ab jullit munoo ne man jullit laa ba pare te du ma topp alquran munu nekk man jullit laa waaye gëmuma alquran yow nekkoo jullit waxal leneen nga waaw man gëm naa yàlla waaye alxuraan li muy wax moom mënu ma ko nangu xanaa da ngeen a fàtte yàggul lool yàggul dara dara dara da ngeen a fàtte Omar dagg na bopp nit waa jooju waxul man duma jullit waa jooju waxul weddi naa lislaam dane yonent bee ma àtte bim ma àttee lam ma àtte nanguwuma ko dégg ngeen wax waa ji waxul man duma duma jullit waa ji waxul bàyyi naa julli waa ji waxul wooratuma waa ji ne ne yonent moo ma atte la ma yonent atte neexuma Omar ne ko xaaral ma ñëw dem daas jaas ji ba mu ñëw nëbb ko ñu ne ko loo wax mu ne ko damaa xuloog yahud bii ab yahud la xulool yahud ku dul jullit mu ne ma dem ci yonent bi yonent bi atte faral yahud bi ma bàyyi yonent bi ma ñëw ci Aboubacar ma nettali ko affaire bi Aboubacar atte ñu waaye moom tamit xam naa dafa faral yonent bi rek la yonent bi waxoon la wax mu faral yahud bi moo tax yow Omar ma ñëw ci yow Omar ne ko nga ni loo wax mu ne yonent bi moo ma atte d'accorduma Omar dagg bopp bi nit ñi ne Omar rey nga jullit xanaa xamoo ne waa ji jullit la aaya daa di wàcc ànd ak Umar yàlla mu ne fala wa rabbik laa yuminuun xatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla mu ne giñ naa ci sama màggaay ñii bu ñu jullee du ma ko nangu suñu wooree du ma ko nangu lu ñu mën a def duñu du ma ko nangu lu dul yow muhammad alayhi salatu wasalaam soo leen attee ñu nangu te boo àttee ba pare du ñu am ay ñagg-ñagg ci seeni xol dañuy jébbulu nangu li nga wax moo tax munoo wax ne man jullit laa waaye gëwumu alxuraan mënul nekk kon doo jullit kon dafa war ñu topp waxyu waxyu mooy lan mooy li yàlla wax ci alxuraanam ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee ci sunnaam sunna yonent ñetti mbir la alxuraan moom benn kese la mooy lan mooy waxu yàlla amul leneen sunna nag ñett la mooy waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wala mu nekk jëfam bu mu jëf wala mu nekk loo xam ne moom waxu ko jëfu ko waaye dañ koo def ci kanamam mu saxal ko yooyu nag borom xam-xam dañu ne xulqiyan wa xalqiyan ci mbindam ci mbindam moom yonent bi wala ci jikkoom loolu mooy sunna yooyu nag ab jullit munoo ne man jullit la waaye daal dëgg dëgg dëgg dëgg booy li am tey nga ni man jullit la islam ne la islam ne la jullit ñeenti jabar lay am nga naan ah diw nag sëñ diw nag sëñ diw nag moom am na sañ-sañ boo xam ne lu ko neex mu def charia li mu rëdd ku ko dépassé rek génn nga ci islam yàlla ne julli leen nga ne ah ñun de duñ julli lu tax ñun am nañ sañ-sañ ndax diw moo jox diw ndigal ndigal googu ñun ñëpp bokk nañ ci loolu génn ngeen ci lislaam yéen ñooñu ñëpp koor gi ñu nekk woor leen nga gis gars yi bañ a woor foo tourné ci mbedd yi ñuy def ay sandik ay ay cin naan dañuy togg café xanaa xamu leen ku woorul bu la joxee waroo koo jël xamu leen loolu yéen xamu leen ponkal mu bañ a woor su la joxee café waroo koo jël xamu leen loolu xanaa jàngu leen hukmu taariku sala atta bàyyi ku bàyyi julli xanaa jàngu leen ko yéen ñi jàng arab bu ngeen jógee ngeen wër ci bibliothèque yi am na benn téere bu Useymin def ah waaw jërëjëf mu ngi tudd hukmu taariku sala lan mooy atte ku bàyyi julli ku bàyyi julli bu rendee kenn waru koo lekk yahud bu rendee chrétien rendi mën ngaa lekk nga dëkk ak jullit bu dul julli du woor su la rendee su rendee togg ba mu ñor bu la joxee waroo lekk kon bu la joxee bu la joxee café nag ah en tout cas waxuma waxuma ñiy joxe café yépp ci dëkk bi wooruñu de waxuma loolu dama ne ñi ci woor moom def nañ lu baax ñi woor ñi ñi woor ñi woor ba pare dem jël say cin jël sa mburu jël sa tàndarma jël sa bisaab jël sa ndox taxaw ci digg mbedd mi di jox nit ñi waaw yow tiyaaba yi nga am kenn xamu ko waaye boo woorulee dara da la yaa ko tey da nga ne diw man diw moo ne bu ma woor ndax ndogu koo ko jox lekk ko araam na ndax yow da nga murtad ku murtad lu mu def yàlla du ko nangu innama yataqabbalu llah innama yataqabbalu llah min almuttaqin su ko defee ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax ñu góorgóorlu ne topp wax yu dafa war topp wax yu wax yu nag wax naa leen ko léegi dafa ëmb lan kàddu yàlla muy alquran dafa ëmb kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay jëfam juróomeel mooy bayaanu butlaanu mazhab alqadriya tey danañ jàng am na benn ngir ci ngir yi doomu aadama yi topp ngir googu sharia daf koo dàq ngir googu borom xam-xam yi dañ koo dàq ku fa bokk sa pas-pas wérut sa pas-pas baaxut te sa pas-pas bu baaxulee boo dajeek yàlla du baax kon loolu dañ ci day delluwaat rek di jàngale ne ñun lépp loo xam ne nu ngi koy def dañ ko war a dëppale téere yàlla ak téere yonent bi ak sunna yonent bi jullit bi dafa war a góorgóorlu ci dundam lépp lu muy def mu dëppale ko ak kàddu yàlla ak kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam su boobaa ci lay jëriñu moom jullit boobu su boobaa jaamu yàllaam ci la ko yàlla di nangu su boobaa ay jëfam ci lay mën a tegu ci dëgg waaye imagine leen yàlla ne julli leen nga ni man duma julli waaye jullit laa woor leen nga ni wooruma waaye jullit laa nañ aji màkka nga ni màkka jarta dem beneen yonent amul ginnaaw yonent bi nga ni aha kay my prophet is black nga dem jël tiset bu weex daal di koy yóbbu ci waa ji mu daal lay dessinéel bindal la ci ci anglais man sama yonent dafa ñuul man sama yonent dafa ñuul yàlla daa mos a yónni yonent bu ñuul ñun xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam seyduna muhammad mooy sunu yonent te ñuulul woon ndeysaan maa ngi fàttaliku rajo duniyaa bi muy doog a ubbi am na benn waay bu ñu doon woowee taal par guddi bu huit heures jotee rek day ñëw ci rajo bi di def ay waxtaan bu defee waxtaan ba ci yàgg mu daal di ubbi antenne bi nit ñi commencé woo di ko laaj ak di ko muy joxe ay wird ay askar nit ñi di ko def ndeysaan gaa yi bi ñu xamee ne waa jooju day réeralaate mbokk yi commencé jënd crédit di toog ci télécentre yi nekk groupe su ubbee antenne rek ñu dugg mu commencé ndeysaan naan boo nee boo koy woo téléphone boo nee asalaamualeykum wa rahmat mu ne ñoom la ñoom la waa Colobane la waa Colobane coupé ndeysaan tuuti mu dof benn bis benn waay ne ko sëriñ bi mu ne ah mu ne man de dama gént gis yonent bi mu ne allahu akbar texe nga texe nga texe nga texe nga yonent bi ku gént gis ko texe na wallahi texe nga giñ naa ci yàlla texe nga waa ji ne ko waaye mais li ma jaaxal mooy ku ñuul laa gis de mu ne ah léegi texe bu njëkk ba fu mu fu mu bugg kon mbokk jullit yi l'islam fi mu ñu yemloo sharia fi mu ñu yemloo foofu la yàlla bëgg ñu yem foofu la yonent bi bëgg ñu yem ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn munu fi indiwaat lenn lu nekk dëgg yéen a ngi may dégg ma ne ginnaaw yonent bi kenn munu fee indiwaat lenn mu nekk dëgg kenn munu fay indiwaat lenn lu valable ginnaaw yonent bi laa wax kenn munu fee indiwaat lu valable ginnaaw yonent bi kenn munu fee indiwaat loo xam ne day dajji li fi yonent bi defoon képp ku ñëw di woote waat ginnaaw yonent bi naan nangam bi nañ ko def wala lii dagan na wala wala wala bu yeboon nit ñi bàyyi la dimbali ji la dam laa yóbbu ci psychologue yi ah mooy kooku waaw mooy li ma doon wax keroog am na benn tafsir bu jàll ci weeru koor bi ma doon leeral ndeysaan benn conférence ma doon def fii nii door a aw ma pare rek benn waay attaqué ma mu ne ma yow li ngay wax xamoo ci dara ndax alxuraan juróom-ñaari alxuraan la juróom-ñaari alxuraan moom yow benn bi nga jàng rek toog fi di wax maanaam da ngay gis réer li yàlla naan quraanun mubin quraanan arabiyan ñoom ñu def loolu ay téere ana qur'anan mubin ana qur'an arabina ana qur'an nangam ma ne ko yow jàngoo dama nga jàngi yow dangaa jàngul ndeysaan loolu mooy seen problème effectivement Sénégal du ñu jàng dañoo rëy làmmiñ mais jànguñ dama nekk ci benn oto jógee Malika maa ngi toog benn waay ñaari nit dugg ci oto bi kenn mënta dégg di wax dara rara rara rara rara ba apprenti bi tarul laaj paas ah fekke nga ko allahu akbar la ilaha illallah ay fekke nga ko jërëjëf saa yi ma toogee fii yàlla moo may suturaal saa yi ma toogee fii ne wax dara rek dina am ko wax fekke naa ko waa ji ñaar ñooñu dañoo ñëw sa waay dañoo ñëw jël xelu ñi nekk ci oto bi jàpp apprenti bi talatul laaj paas bi ñu ne xulli ji di leen xool waa ji di jaxase alquran di dëbbate di rajaxe fi ma toog maa ngi fees dal di ko xool rek muy wax ko càgg rek xam naa def maa xool ak sama sikib mu ne li may wax ibaadu yi sax xam nañ ko ma ne ko teeral nga nag ma ne ko teeral nga yow xamoo dara ci li ngay wax tus xamoo ko maa ngi yoroon kaamil bu ndaw sama poos ma génne ko ma ne ko moo ngi nii li ngay wax waxal fu mu nekk fu ñu ko fekk yàlla bind rek waa ji beneen waa ji bëgg cee dugg ndeke super bi ñu bëri bëggoon nañoo wax ñi rek gaay ne ko eh sa yoon nekk ci génn ci ñoom ñaar la génn ci maag waa ji maag waa ji ba jagre waa ji daal sapeur teg sa tànk waay daa di wàcc daa di yoxos soxos rek ñoom ñaar ñu wàcc daw yàlla may ñu gudd fan ma dem sama benn ngénte mbokk yëg si rek toog waa ji benn waay jékki-jékki rek dama ne ma salaamaaleykum daal ne ma ne ko waaleykum mu ne ma xam nga ma ma ne ko xamee ma le mu ne ma man man nga dajaloon malika ci oto ba man nii la ma ne ko mbaa génn nga ca la nga nekkoon ne nga xam ne ñii sénégalais da ngay gis ku xamul dara jàngul dara xëy rek nekk sëriñ di waaraate commencé am ta am ay mbooloo di riiralaate nit ñi topp la te dara dara xamoo ko dara li ngay wax du alxuraan du sunna te sax li ci gën a garaaw mooy yow li ngay wax day dajji alxuraan ak sunna mais waaw maal asaf nit ñi dañ lay topp xam nga lu tax nit ñi di la topp est-ce que xam nga lu tax Sénégal ku woote amay taalibe parce que foo la ñuy woote kaay leen ñu fo kaay leen ñu tëgg kaay leen ñu fecc kaay leen ñu jaxasoo góor ak jigéen kaay leen ñu akkolaatante kaay leen ñu fóonante kaay leen ñu ah loolu kay kooku woote am taalibe waaye kaay leen ci dëgg kenn du ñëw kaay leen ñu jaamu yàlla kese bu ñu bokkaale dañ tekki téere yeeg gàllaaj yi nga dégg ñu ne ñii dañoo contre mag ñi ñii dañoo weddi dañoo weddi ñi gëmuñ dara ñii Arabie Saoudite moo leen jox xaalis ñii ñii commencé ku nekk di wax di wax di wax di wax di wax waaw fekk ñoo gën a tey ne xam na ne li ñuy wax lépp lenn dong moo ciy dëgg lenn dong moo ciy dëgg mooy dañoo bañ nit ñi jaamu yàlla loolu kese la parce que nit ñi bu ñu leen libéré rek ah ku nekk jaamu ji yàlla kenn dootul topp kenn waaw yàlla rek nga war a topp atiullah waatiwul rasul yàlla waxul topp leen keneen waaw kon nag mbokk jullit yi aaya yi nekk sunu kanam moom mooy darsu tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp te nangul nu ko moom yàlla tabaraka wa taala sunu juumee yàlla na nu yàlla jéggal mu nekk ñeenti aaya yu nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala nee na qad jaakum basairum min rabbikum faman absara fali nafsih sunu borom nee na ca dëgg-dëgg gis nga xat la jiital ca dëgg-dëgg leer na nañ jaa akum dikke ne leen ñëw na ci yéen basaa'ir ay gis-gis yu leer nañ weex tal mooy ay aaya min rabbikum yu bàyyeekoo ci seen borom faman absara képp ku ko nangoo xool gis fali nafsi sa bopp nga ko def defoo ko kenn lii leer na nañ luñ bind ci luñ bind ko luñ ko bind ko en français.
du fait qu'il vous ait parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur.
jeex na Donc quiconque voit clair, c'est en sa faveur.
jeex na tàkk yàlla nee na mbir mi leer na naññ lu leer naññ la yàlla wàcce mu bàyyi ko ci moom ku ko gis jàpp ci defoo ko ku dul sa bopp ku gis sànni koo ko def mu ne waman amiya ku ko gumba gisuma ko mu ngi nii gisuma ko gumba ah mu ne fa alayha dafa ko kenn ku dul sa bopp gis ngeen kon mbir yi ku yaakaar ne boo jubee dafa am ku tax nga jub wala boo dëngee dafa am ku tax yaa ngi nax sa bopp waaw waaw tukulóor yi dañ koy firi ñu ne kolongere maaro maaro wulko a nokki a waɗe hojjuduma a tinata ina safi kono ma tel ina wuli ñu ne mbir mi dankub ceeb la bu tàng jër bi nga ko tibbee au lieu nga sex da nga kaa tibb teg ci sa doq sëgg nii loo yëg tàngoor waaye doo yëg sa cafke gi doo ko ñam mukk parce que defoo fa fi nga ko war a def ku gis dëgg yàlla gi mu ne fang yàlla ne ñëw na ci yéen jóge ci man basair min rabbikum lu leer nañ weex tall nekk ay aaya wa hiya ayatul quran al muwaddaha ay yu leer nañ ñëw di orienté nit ñi li tariqi najah jógal non fële ci ginnaaw nga toog foofu kon ku gis dëgg yàlla gi nga bañ ko nga bañ ko jël koo ko def sa bopp ku gis dëgg yàlla gi nga jël ko koo ko def sa bopp soo jullee julloo kenn soo wooree wooraloo kenn soo naafila naafilaloo kenn lépp loo def lu baax defaloo ko kenn waaw léeg-léeg ngay wax nit ñi nañ jaamu yàlla ñu yaakaar da nga ci am intérêt sa waay ñii woote kaay leen ñu baax lu baax dong lañu bëgg dañoo bëgg dong nit ñi dugg àjjana ku leen wuy si fa lillahi alhamd ku leen wuy siwul sant ñeel na yàlla olof nee nañ ku leen a sangul sa taar la bëgg ku leen a sangul daa bëgg nga set waaw waaw boo nee maa tey sanguma dem jël huile bi xëppoo ñuy wax nga bëringu ci suuf toogal 24 heures nga xool koo ko def di nga sangu ji te kenn du leen a jógal sangu kon nag yàlla li mu wax leer na mbokk jullit yi bu ñu bu ñu nax sunu bopp qad jaakum basairum min rabbikum lay wu leer nañ wu weex tal di ay aaya yu set wicc bàyyeekoo na ci seen borom dikk ci yéen fa man absara ku ko gis xippi ay bëtam nangoo koo jël fali nafsi sa bopp nga ko def wa man amiya ku silmaxa lank gumba fatt ay bëtam yemoo ci sax jël moor sa takk say bët fa alayha sa bopp nga ko def mana kon mu leer ne kenn jaamulul yàlla kenn ñun diw jaamul nanu yàlla loolu amul fenn kenn munta jaamul yàlla nit munoo jullil nit bépp farata bu la yàlla sant munoo ko defal nit yow rek yaa koy defal sa bopp njubal yàlla gi boo ko nangoo jël sa mbir baax soo ko tegee ni tege nga am problème sunu borom subhanahu wa taala mu ne faman absara biha jógal bàyyi ko jógal moom day déglu demal mu ne fahiya kal ayn al mubsira lii yàlla di wax ne njub la moo ngi nii leer ku ko gis mu ne mu ngi mel ne gis-gisu bët gars yi bët lu muy jëriñ ah xool soo nee man damaa mere nit ñi wala damaa mere yàlla du ma xool ndeysaan sànq laay dégg benn meer bu doon traversé raay bi daal di daanu terrain bi dagate ko léegi léegi laa koy déglu balaa may ñëw ah léegi léegi ndeysaan xoolal rek nga gis seen terrain di ñëw au lieu nga jéggi déppi nga waaye ba mu jege la zéro mètre nga ne da ngay daw te dégg naa maire bi am na ay soixante-dix ans xaw ma ah ay soixante affaire yooyu xam kooku mag la mënatul daw kon ba muy jéggi affaire bi jege na ko dafa daanu dafa doon daw di jéggi daal di daanu ci raay bi train bi ñëw tasaare ko oh loolu la yàlla di ñu wax fii fa man absara fa li nafsi ku gis sa gis-gisu bët mbir maa ngi nii lii kat mooy dëgg leer na et puis et puis ñun dañu yor xel ñun duñu ay bàyyi ma dañu war di analyser ci suñu xel yi tey ñu ngi nii ñun ñëpp toog ku fi ne ci kër asalaamualeykum ñu ne la wa aleykum salaam exil toog nga ñëw fekk gaz baa ngi nii di takk fourneau baa ngi nii di takk and baa ngi nii di takk fauteuil yaa ngi nii dañ leen a toogal rek fooy toog kenn waxu la toogal ci fauteuil yi dañ ne toogal rek lan moo la orienté ba nga dem toog ci fauteuil yi lan moo la orienté ah xale xale bi yaa ngi dóor fii naan nii sa xel biñ la nee toogal kenn waxu la jàllal ci biir toogal ci fauteuil yi kenn waxu la loolu dañ ne toogal jàllal nga toog nga dugg gis gaz bi mu ngi tàkk lu tax teggi woo cin bi toog ci damay laajte parce que sa xel moo la ne fii kenn du fi toog fee la ñuy toog waaw léegi nag naka naka nga nekkee ci mbedd mi di tambaambalu ko nga dajeeg nit rek gëm ko naka loolu nu mu nekkee te nga am xel yow ah nga dajeeg nit rek mu wax la dara rek nga gëm ko te nga am xel nekk nit nga dégg yàlla wax ak yow nga dégg yonent wax ak yow yàlla yónni ci ak yonent yàlla wàcce ci yow téere xanaa bu la nit ki waxee sax yàlla nee na nga ne ko fu mu ko wax ana aaya bi ah ban saar la mu ne yonent bi nee na nga ne ko ana hadis bi mu ne la diw nee na nga ne ko diw yàlla yónniwu ko ndeysaan benn paa dafa maa fekk suñu jàkk ba maa ngeen nekk xale boobu la xabdu di doog a commencé xabdu nii Sénégal ma commencé di xabdu mu ñëw fekk ma ne mu ne gis nga yow yow da ngaa nar a sànku da ngaa nar a alko yow li ngay def sa baay daaw ko def sa yaay daaw ko def fii nga juddoo sunu kanam nga jékki-jékki bëgg a weddi imam malik te lii imam malik moo ko fi indi ma ne ko imam malik yàlla yónniwu ko mu ni ya yow loolu nga may wax mais dëgg la imam malik ndax yàllaa ko yónni imam malik yàlla yónniwu ko kan la yàlla yónni Seydina Muhammad moom dong ngay weddi ëllëg yowmal xiyaam nga dugg bàmmeel ñu duma la egg ko alaxira de soo weddee yonent bi
moom Imam Malik am lu mu wax bu mu waxoon.
waaw moom moom sax da doon xabdu loolu am wax bu mu wax bu mu waxoon.
kullul kalaami yuxas wa yurad illa saayu haza al qabr moom sax waxul loolu gaa yi koy tuumaal rek Imam Malik waxul loolu gaa yi koy tuumaal rek Imam Malik moo daan jàngale jàkka yonent bi bu ñëwee fekk taalibe yi toog mu ne lu ngeen di jàng ñu ne hadis day delluwaat sangu parfum ba xeeñ solu ba rafet kaalawu ñëw toog su waxee ba ci yàgg mu daal di jël loxo droite bi mu teg ci bàmmeelu yonent bi maanaam bu toogoon nii day wéeru ci bàmmeel bi su waxee ba ci yàgg mu teg loxoom ci bàmmeel bi mu ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haazal qabr waxi ku nekk suñu neexee ñu jël suñu neexee du bàyyi ñu bàyyi mu ne ba mu des waxu kii kii waxam kenn ñemewu ko bàyyi benn bis day jàngale hadis waxu yonent bi ñu jékki-jékki gis muy def nii kanam gi di changé muy ñëkk bi mu paree saxaaba yi am ñenn ñi ne ko waaw yow imam Malik ña mu àndaloon ci taabiin yi ñu ne ko Malik tey de gis nañ nga def loolu mu ta def lan la mu ne ñu ne ko bi ngay jàngalee hadis bi sa kanam gi da doon ñuul di xonq di changé ay couleur lu ko waral mu ne bi may jàngalee hadis bi benn jiit moo nekkoon sama suufu tànk bi di ma fet mais rus naa dagg waxu yonent bi imam Malik musta sol dàll ci madinatul munawwar nee na suuf suñu suul yonent bi man Malik du ma fa sol dàll mukk di ko dëgg di di dëgg suuf soosu ak sama dàll waaw kooku mooy imaamu malik mooy madrasatul hijaz la yufta wal maliku fil madine kooku la waa sénégal ne mooy seen sëriñ waa sénégal nee nañ ci ngir moomu lañ nekk waa sénégal daal waroon nañoo wax ne ñun ci ngir ngir miñ nekk mooy ngirum imam bànneex au lieu de imam malik ngirum imam bànneex ah dañ waroon wax waaye ngirum imam malik xanaa xam leen ne ngir yi maa maa liggéey ci gën a saf xam leen lool xoolal soo demee yeneen ngir yi ci weeru koor boo doon boo juuboo nga naan nga doon nelaw rek yeewu naan i man de dama waroon ñu ne yow sa koor baax na continuer la Malik ne da ngay continuer fay benn fan gis nga gis nga ni mu safee maanaam li nit ñi di négocier Malick du ko négocier yaa ko tey nga dog borom xam-xam yeneen yi ñu ne da ngay fay benn fan Malick mu ne da ngay woor ñaari weer di toppante te da nga fay benn fan boobu parce que yaa ko tey mu ngo xabdu xabdu yonent bi moo ko fi indi Malick da doon xabdu mi soo demee ci téereem bi mu bind mu watta dafa bind ne moom da doon xab hadis yonent bi la fa def ne yonent bi da doon xabdu kon kay moom nu muy nu muy su fekkoon ne Malick du xabdu kon téereem boobu tudd mu watta du ci def hadis bi yonent bi na xabdu leen Malick dafa am histoire lu tax xabdootul te loolu du fi xej dafa am lu tax moom Malick xabdootul mais da doon xabdu Malick mës na julli da doon xabdu histoire boobu moo tax Malick xabdootul loolu du xej fii mbokk yi sunu borom nee na wa man amiya ku gumba silmaxa lànk bañ a gis dëggu yàlla bi gumba di gumba gumbalu doo gumba sax mais da ngay jéem a gumba gumbalu di bañ léeg-léeg nga ni benn waaye yàlla nee na mu naan la ah dëgg la nag waaye xam nga nag dëgg yàlla affaire boobu dafa xaw a metti nag ah wala diggante joxel joxante loxo góor ak jigéen sunu papa yeeg sunu maam yeeg li ci ëpp kilifa diine yeeg ñëpp ndeysaan benn waay nee na ma barki démb rek démb démb démb benn waay nee na ma benn image du denc man mukk ke rek ba ma gisee jabaru président de la république di accolade benn kilifa diine di ko accolade waaw ndeysaan jabaru président di accolade kilifa diine ah daneen yàlla dimbali léegi tey boo nee góor ak jigéen duñ joxe loxo ñu ne ñii seen diine ji dafa ëpp quoi ñii dañuy teengal ñii dañoo dangal ah boo nee jigéen na sol yére bu jot bu mu sol lu yaraax lu xat jigéen na muuru ñu ne non ñii aaday naar lañ yof xanaa Sénégal a ngoog fii daal leen dong ngay wax nit ñi ne dëgg la mooy fecc leen woy leen def leen lu leen neex ñu ne dëgg la yow li ngay wax macha allah nii la waaw yal na nu yàlla taxaw borom bi tabaraka wa taala nee na wa ma ana alaykum bi hafiz yow muhammad alayhi salatu wasalaam waxal ak gaa yi ne leen aleykum salaam wa rahmatullah ay lastu bi wakil mas'ul an hidayatikum man mii kat muhammad yàlla chargé wu ma pour ma ñëw di leen garder yàlla chargé wu ma pour ma ñëw yor seen njub sama loxo fal force ma jubal leen déedéet waaw yàlla waxoon na ko lasta alayhim bi musaytir yàlla yónniwu la pour nga forcer nit ñi pour nañ jub xam nga yàlla lan la la wax wa ma ala rasul illa al balaax yàlla dalaa yónni pour nga jottali jottalil waaye bul forcer kenn nag fal force tey ngeen jub wala ngeen dee déedéet yàlla dalaa yónni nga jottali jottalil te taxaw fee nag bàyyi ma ak ñoom man saa fal yumin wa man saa fal yakfur ku mu neex gëmal ku mu neex weddil waaye ku weddi ba ma jàpp la di nga rëcc loo doon nekkee doomu aadama kon mbir yi leer na wa ma ana aleykum bi hafiz man de yàlla yónni ma pour ma leen di wat pour ma leen di jubal pour ma leen di surveiller ma toog seeni buntu kër te toog seeni saal di ànd ak yéen ci mbedd yi di leen surveiller déedéet ah déedéet yàllaa ma yónni rek nag pour ma jottali message bi ku mu neex soo déggee gëmal ku mu neex soo déggee weddil waaw loolu la yàlla yónnee Muhammad yàlla yónniwul Muhammad pour mu ñëw yor yatam topp suñu ginnaaw mel ne sàmmkat dinu wulli ay yat pour ñu jub pour ñu julli déedéet yàlla daf ko yónni pour mu ñëw taxaw wax ñu dégg ko déglu ko dégg ko mu ne dégg ngeen ñu ne waaw moo tax keroog caajatul arafaat caajatul wada ca naaj bu tàng ba ndeysaan naaj bi daa tàng ba saxaaba yi yërëm yonent bi waaw kenn ci saxaaba yi moo tekki kaalaam ñu daal di jël kaala bi takk takk ñeenti cat yi bu nekk benn bant ñu tiimal ko yonent bi boobu moom mu ngi ñaq wala ñaq baa ngi wala ngaan ndeysaan ci yaram bi moo ngi tooy xap ndax ñaq moo ngi aj moo ngi armal ñaq bi di wala ngaan ndax tàngaay kenn ci saaba yi jël mbalaanam ñu daal di koy takk ñeenti cat ñu yëkkati ko ci kaw ay bant ñu tiimale ko yonent bi ndeysaan ndax mu am keppaar ma nga naan saxaaba yi xool leen moom bu baax amaana place bi moo fi jógee tey dootuma fi dellusiwaat ndeke boobu mu ngi tàggoo ma nga naan leen xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xuzu anni manasikakum xool leen ci man muhammad ni may aje ngeen aje noonu moo tax waruñoo jël jaamu yàlla ci kenn kurul yonente bi erreur bi gën a rëy bi sénégalais yi def mooy jël jaamu yàlla ci keneen ku dul yonent erreur bu rëy la yonent bi mooy jàngale nu ñuy jullee moo ko doon jàngale wala naka la yonent ñëwee ne nii la ñuy jullee ba pare yonent bi dem yow nga ñëw ne nii laa jullee man suñu benn oustaz da doon jàngale julli quoi mu ne soo ne allahu akbar ba pare nga ni nii mu ne ndax am nga julli gaay ne ko déedéet mu ne boo ne allahu akbar ne nii nag gaay ne ko amoo julli da ngay fo mu ne kon boo ne allahu akbar ne nii nag foo ko teg benn kese la allahu akbar ne nii ak allahu akbar ne nii ak allahu akbar ne nii benn la luy différence bi wax leen ma ko yonent bi ba mu ne allahu akbar deful nii deful nii deful nii nii la def defal nii su fekkee da ngaa bëgg a dëgëral ne yonent bi def na nii indil fuñ ko bind téere xadis yëpp indi ko demal ci buxaari demal ci muslim demal ci abu daawud demal ci tirmisi demal ci nasaa'i demal ci ibnu maaja même sax demal ci muwatta imam malik mii demal nga indi téere bi beneen beneen beneen mooy yow da ngay jaamu yàlla ah ku tax ngay jaamu yàlla du yàlla waaw léegi yow da ngay jaamu yàlla kay yàlla ngay jaamu yàlla nee na nii lañ may jaamu nga ni man du ma def noonu nii lañ koy defee nga ni man déedéet déedéet man sama papa du doon def loolu yàlla daa yónni sa papa yàlla yónniwul sa papa yónniwul sama papa yàlla yónniwul sa maam yónniwul sama maam yàlla kan la yónni sayyidina muhammad lan la ko wax ci alquran wa ma ataakum rasul wa ma nahaakum anhu ya ayuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah kon nag jeex na kon dafa am loo xam ne booy sport aguñ de ndogu jotagut de xaaral tuuti rek dugal toog su ko defee mbir yi du du farfarloo nañ leen bàyyi farfarloo nañ bàyyi farfarloo bul farak sa pap bul farak sa yaay bul farak dëkk bi bul farak koñ bi bul farak tarixa bi faral ak yàlla ak yonent far amul njëriñ waaw man sénégalais laa man duma arab kon nii laay jaamoo yàlla da ngay perte ndax diina ji ba muy wàcc ci làkk arab la ko yàlla wàccee qur'anan muhammad lan la kaaba ga fa mu nekk ah ah jeex na kon nag xéewal la bu leen yàlla defal rek waaye tekkiwul loolu yëpp nag ne ñoo ñu gën loolu yëpp nag tekkiwul ñoom ñoo ñu gën de inna akramakum inda allah atqaakum ana bilal ma nga àjjana ana abu jahlin nga safara kon jeex na bilal ku lan la ku ñuul la kon mbiri du ñuul du weex du xonq du zone mbiri toppal li yàlla wax ak yonent démb joxe naa ci misaal conférence ba doon dem ma ne nit ñi dañuy def ay erreurs yu brave gaay xam ngeen yonent yàlla nuuha xam ngeen ko xam ngeen yonent yàlla luut ñoom ñaar ana seeni jabar ñoom ñaar seen jabar yaa ngi safara xam ngeen firawna xam ngeen firawna ndax mës ngeen gis kuñ tuddee firawna ku jaar ni dem ñu ne kee de firawna lañ ko tuddee mës ngeen ko gis la moo tax amul turandoo ah dafa bon jabaram ngi àjjana kon mbiri fan la nekk mbiri nekkul kii mooy papaay diw kii mooy maamu diw kii yonante yonante yi seeni ndey ak seeni baay ak ñenn ñi ngi safara xoolal Firawna kàccoor bu bon boobu kooku dëgg dëgg dëgg dëgg su fekkoon dëgg rek la ñuy xalaat kooku jabaram nu mu war a dem waaye jabaram a nga àjjana boobu sax dafa tuuti yëg leen fa muusa allazi rabbaahu jibrilu kafir fa muusa allazi rabbaahu firaun mursal moo tax waykat bi ne isal mar'u lam yuxlaq sa'idan faqad xaaba man rabbaahu wa xaaba almu'limu fa muusa allazi rabbaahu jibril kafir fa muusa allazi rabbaahu firauna mursal borom xam-xam yi ne nit su ko yàlla bindee ci azal ne kii day texee di safara la jëm kenn mënut a fexe mu baax ñu ne lu ko wone ñu ne Moussa bi nga xam ne Jibril moo ko yar safara la jëm Moussa bi nga xam ne Firawna moo ko yar dem àjjana Jibril ku Moussa Samiri Jibril moo ko yar Jibril moo ko doon nampal ay baaraama doomu njaaloo la woon ci àll ba Jibril la ko daan fekk di ko nampal te koy baaraama muy wa- muy macc ah foofu la gisee jibril bu tànk fas bi tegee mu gis mu sax ñax mu tibb ko denc moo tax ba mu defaree banu israil yëkk ba ba pare mu jël suuf si def ci gémmiñ gi nag bay naan ñi naan ah, di yuuxu waaw mu ngoog loolu sax taxu ñoo jóg tey dañuy leeral rek sunu borom nee na wa kazalika naka noonu nii ma wa leerale lii aaya yi wàcce ko mu jóge ci kaw jóge ci man ñëw ci yéen nu sarrifu laay leerale firi al ayat aaya yi noonu laa koy faramfàcce leeral ko ba mu leer bi nahwi ma sarafnaaha min qablu fi hadha al quran nusarrifuha kadhalika li hidayati al murid al hidaya murid al hidaya noonu ma faram-fàccee la téere bi leeral ko ci alquran bi noonu laay leeralee ñi bëgg a jub ak ñi xemmeem jub pour ñu jub muridil hidaaya wa raghibin fiha ñi bëgg a jub buñ bëggee jub ku bëgg a jub alquran a ngi nii ku bëgg a baax téere baa ngi nii lenn mënulaa baaxal lu dul téere yàlla bi leneen loo dem pour baax xam nga loo fay mujj a nekk mbaam mbaam ngay mujj nekk ñu lay bayloo ay tool di la sangloo ay mbaam di la raxasloo ay oto di la naanloo potit waaw suñu benn nijaay ndeysaan da doon da doon dem kër sërif su demee rek yére yi buñ ci limee mu indi ko gis nga bu ko indee buñ koy buñ koy buñ koy xayu xam ngeen xayu nit ñi di ko naan bu mu ko wutte sirif nga leen yare waaw xam nga dëgg-dëgg loolu réer la ah réer weesuwul loolu yére bu tilim ñu koy fóot ngay naan tilim bi lan moo waral loolu mooy bàyyi xel xel ku bàyyi xel mooy def loolu ku bàyyi xel ku bàyyi sa xel mooy def loolu allahu akbar yonent bi xam ngeen danaan gàjju ah danaan nàmpatalu benn bis mu nàmpatalu ba pare mu woo kenn ci saxaaba yi mu ne ko am deret bi demal ba fële nga tourné bu la kenn gisul nga gas ko suul ko waaj daal tourné rek naan ko ñëw toog léegi yonent da ko seen rek ndeysaan yonent bi daal di yuuxu daan ne ko ñala ñala na la rey ëllëg alku nañu safara lañ jëm ndax deretu yonent lañ nar a tuur te kaa naan ñi la nar a rey ëllëg alku nañu ndax deretu yonent moo nekk ci yow yonent bi xamoon na ne loolu la koy defe ndeysaan borom bi nee na subhanahu wa taala man yàlla maa leeral alquran bi ba mu leer naññ naññ naññ naññ waaye ndeysaan wala yaqulu ngir ñu wax darasta léegi da nga ne yonent bi da doon jàng barki démb am na ko ko fi wax ne yonent bi jàng na ba bëgg a dee yéen a fàtte loolu motagul ñeenti at di yéen gaaw ngeen fàtte di waay Sénégal yéen a gaaw a fàtte benn waay toogul fi ne yonent bi da doon jàng gerek yi ñoo ko doon jàngal xaw ma li mu jàng yëpp ci soiru garab bi la ko jëlee voilà waxuñu sax ñu dem ay Arabie Saoudite ñu demee ne fii ngeen ko dégg fii ci Sénégal gii ay nit di ko wax waaw mu ngoog du du man damaa junj rek yéen a wax turam kon nag mu ngi noonu mi ngi nii aaya yaa ngi nii wala yaqulu ngir ñu wax darasta yow miy jàng nga da ngaa inscrire ci lycée yi bay dem université jàng ba am doctorat ñoo fi naan yàlla la yónni yàlla yónni wala dara da nga doon jàng moo ngi nii leer nañ ay taallamta jàng nga wa qara'ta ndeysaan laa wahyan uhiya ilay kenn wax yu wala dara mooy nga doon jàng nëbbatu di def ay cours du soir am na fi ay gars yoo xam dañoo nëbbatu def ay cours du soir ba xëy nekk ministre ku ngeen xalaat nag kooku la ñooñu jànguñu woon benn école wala inscrire ñu woon benn fenn dañoo am seen alal di jàng di jàng di jàng ba ñu xëy def leen ay ministre waaw loolu nag kenn dong ndeysaan mooy tàgg ci moom jàngoo yaa fi raw mooy Seydina Muhammad jàngul te moo fi raw ndeysaan al ummiyi alladi allama al mutaallimin mooy ki jàngul te moo raw ñi jàng léeg-léeg nga dégg ñu ne alxuraan bii du kàddu yàlla dara waxu yonent bi la looloo tax mbokk yi ma leen di wax ne kon yonent bi jar naa fan ah jàngoo ngay indi fi téere boo xam ne septième siècle ba léegi kenn mënu ko fee dindi téere bi ñaata nit a ko gëm ci àdduna bi te yow ñu ne jàngoo ngay indi fi téere boo xam ne tey ah idéologie boo xam ne tey ñaata nit ñoo ko gëm ñaata xam ngeen ko allahu akbar téere bi nekk ci kaw bis bu nekk ñu koy reproduire day manqué ba gaay yi di ko wëri kon kay dëgg-dëgg même alxuraan bu fekkoon ne du waxu yàlla waxu yonent bi la kon yonent bi jar naa fan jar naa bëgg jar naa gëm jar naa topp waaye loolu lépp nag da leen doon ne alxuraan waxu yàlla la ci mbir yu bare bari yi ñu war a xam ne alxuraan waxu yàlla la doy na misaal rek leçon 32 pages waxuma 100 de leçon 32 pages kan moo ko mën a tari leçon 32 pages kenn mënu ko tari ah li 114 saar la boy yi dañ koy tari gis ngeen barki démb champion du monde bi wala ah fii nii ñuy naafel ay xale yu ndaw ñoo fi taxaw di ñu ko tari fii ay tuuti ba pare fépp fuñ ko jàng ak ku ko mën a jàng boo yàqee ñu jumante la voilà dem leen ngeen woo imam Màkka mu taxaw fi daal di jaxase sabisma rabbika ak wasamsi xam nga paa yi day jaxase fa da ngay def ku ñëw ba xat aflaxa rek daal di téppéeral jógee sa bisma rabbika dugg wa samsi xat aflaxa man zakkaha beneen xat aflaxa bi man desaha rek nga téréere di tàmbale ko sa bisma rabbika jeexale ji ko ak wal fajiri alam tara kayfa faala rabbuka bi aat ak sabil fiir waaye ndeysaan xoolal téere bi li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw li muy xale yi li ñuy ndaw ndaw ndaw ku jaxase xale yi jubanti la ñu gàgganti la loolu moo leen li waxu yàlla la ndax yàlla mu ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu man yàlla maa ko wàcce maa koy wattu maa koy garde kenn duma ko gardeel maa koy garde nan laa koy garde ci dënnu nit ñi laa koy def kenn du ko mën a xotti kenn du ko mën a yàq kenn du ko mën a photocopie ci dënn yi ñaata nit ñoo mokkal alxuraan ci àddina bi ci ay góor ak jigéen te lu ngeen seetluwul Sénégal bi UNICEF ñëwee di xeex alxuraan dafa mel ni dañoo fekk essence dañoo fekk safara buy gëmmintu ñu sotti ci essence yu fi daal di boy jamono yooyu li li mokkal alxuraan ci Sénégal kenn xamul lu mu toll loolu sax moo jur xale bi ngeen gis champion du monde mokkal alxuraan ah te wallahi xëy na kii papaam wala ay ay ñi ko doon encadré dañoo am moyen rek mu dem mais wallahi am na fi ñoo xam ne bu ñu demoon ah kon ngeen xam ne Sénégal am nay jàngkatu alxuraan waaye loolu yàlla moo ko def kon loolu daf ñu won ne diine ji diine yàlla waaw yonent yàlla Muhammad jàngul fen yàlla moo ko doon wahyu jibril la ko yàlla di yónnee jibril indi ko ko alquran wàcc ci moom yonent bi mu nekk ngën gi mbindeef mu wàcc ci ngën gi dëkk wàcc ci ngën gi guddi wàcc ci ngën gi xeer wàcc nekk ngën gi téere loolu yëpp la ko yàlla booleel yonent yàlla Muhammad waaw ngën gi malaaka wàcce ko ci ngën gi mbindeef ci ngën gi dëkk ci ngën gi guddi ah ci ngën gi xeer mu ngoog kon loolu na leer naañ ñi ci ñun ñi naan yonent bi jàng na jàng na yàlla moo ko ne jàngoo ma kunta tadri mal kitaabu wala liimaan bal sax yàlla ko ne nabiyun ummi mooy yonent boo xam ne jàngul lan moo leen di wan yonent bi jàngul keroog ca sulxu xudaybiya Seydina Ali bi Suhayli ñëwee yonent bi di ñuy bind lettre buy wane pacte diggante jullit ñi ak yéefar yi bu ñu xeex lii mooy pacte bi dañoo bind ci kaw lettre bi bismillahi rahmani rahim Suhayli na ko déet déet déet déet dindil bismillahi moom nanguwuñu ko allah nanguwuñu ñu yàlla bu yàlla nangu woon kay duñu xeex yow tamit dindi ko yonent bi ne ali dindi ko ali ne ko man ma bind bismillahi di ko dindi yàlla tere du mu ko dindi wala rek yonent bi ne ali anamu fan la fan la bind yi nekk mu ne moo ngi nii yonent bi effacé ko yonent bi ne waa ji lu ñuy bind mu ne ko bindal min muhammad waaw bu nga muhammad rasulullah mu ne ko dindil mooy tamit bu ñu gëmoon ne rasulullah la ñu xeex ak yooyu tamit mu ne ko bindal min muhammad abdullah min muhammad ibnu abdullah bindal loolu kon loolu mooy yoon yenu jàngul bu jàngoon du wax ji du wax ab ali tegal sama loxo fu mu nekk mu effacé muhammad rasulullah mu effacé encore bismillah tey jii ci ñun boo fekkoon fenn fu ñu bind bismillah nga ni lii kenn ko fi bind bismillah dañ naan yow yéeféer nga waaye boobu yonent xam na ne lii muy def mooy jàmm jullit yi problème bi dug ci kaw ci biir la est-ce que yonent bi daal di effacé Muhammad rasulullah am na lu muy lu muy signifié yonent bi dindi bismillah am na lu muy tekki non waaye bi dafa bëgg a jàngal jullit ñi patience muñ wala fi dañuy wax ne sukk sukk yóbbul say oom ah sukk yóbbul ay oom te nit dafa war am patience am di toléré loo xam ne ëllëg islam moo ci am ndam waaye léeg-léeg ñi xam ak ñi xamul du ñu benn loolu yàlla naan hal yastawi allazina yaalamuun walladina laa yaalamuun ñi xam ak ñi xamul du ñu nekk benn mukk mukk mukk souvent ngay gis même ci dëkk bi am na ci yoo xam ne yenn saa yi ay masala yoo xam ne ay nit dañuy tàng tàng tàngaay boo xam ne mbir yi day jóge foofu rek yàq fekk mënoon naa demee neneen te diine saa yu digle la ca gën a yomb moom moom la digle digle diine saa yu digle la gën a yomb la wax nit ñi ñu def lu tax yàlla ne maa bëggul ngeen sonn yuridullah bi kumul yusra wala yuridu bi kumul usra beneen bi mooy yàlla ne na maa jaala aleykum fi diin min haraj diine ji santuma leen ci lu leen di sonal imagine tey bu yàlla waxoon woor leen bu leen dog dañ koy def rek am tiyaaba ñu ñàkk koo def mu dumanu ah su yàlla ne woor leen ku woor mu bind la tiyaaba bu fi kenn dog de wala julli leen bu fi kenn siggi pourtant am na ñu ko yàlla sant te boobu ba léegi ñoom ñu ngi koy def yokkatuñu découragé wuñu sonnuñu du ma ci joxe misaal yu bari kenn doo nga laa joxe xam ngeen Asrafil xam ngeen malaaka boobu tudd Asrafil bi yàlla bindee àddina bi ba léegi da koo jox benn benn buft benn keleron lu mel ne béjjinu nag da ko yàlla jox ne ko engenul mu teg benn tànk bi beneen bi mu def ko nii mu ne nii dëngal nopp yi di déglu su ko yàlla ne ëffal mu ëf àdduna bi jeex su ko yàlla ne ëffaatal mu ëf ñëpp dékki boobu ba léegi nii rek la def bi yàlla bindee àddina bi ba léegi benn position boobu la def du wax loxo yi toqi na du wax mbib bi yàgg na ci gémmiñ gi du wax déglu gi muy déglu yàlla dafa yàgg kon nga xam nga ne ñun defuñ dara ah kon nga xam nga ñun defuñ dërëm boobaag léegi ñaataal la te noonu rek la def loolu la borom xam-xam yi ñu ne position boobu la jël am na malaaka yoo xam dañoo taxaw rek di kàbbar yàlla allahu akbar di kàbbar am malaaka yoo xam dañoo rukkoo du ñu siggi mukk am malaaka yoo xam dañoo siggi yii dañoo sujjóot ba pare boole ci naan subhanaka ma abadnaaka xaqa ibadatik sell ñeel na la yow yàlla niñ la war a toppee ñun ba léegi toppewuñ la noonu ñun nag wala ñun xiyaamu lay li ngay ñëw rek door benn xisib rek génn naan nii quoi waaw booy dem ba xiyaam bi dama ko taxaw ba waay chel dama ko géré allahu akbar yow defoo dara di loo def benn jigéen ndeysaan doomam dafa gaañu muy jooy jooy benn waaye ñoo ne ko muñal muñal xanaa xamoo sa doom ji moom jot naa jaamu yàlla sax jot naa def nangam ak nangam moom moo tane xeetu sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam ñooñu dañuy gaaw a dee mu ne ko ndaw si ne ko ñooñu ñaata at la ñuy am mu ne ko ñooñu ay juróom fukki at juróom ñaar fukki at juróom ñett fukki at ndaw si daa di waat ci yàlla ne su ma fekkee woon jamono boobu benn sujjóot laa koy def benn sujjóot juróom ñett fukki at yooyu mu ne benn sujjóot laa koy sujjóot rek ba dee dajeek yàlla ñun defuñ dara di ñun defuñ dara dafa luñ yàlla dara dara dara dara dara dara ba pare di ñuy ñuy naw suñuy bopp loolu mooy wax bi borom bi nee na wali nubayyinahu ngir ñu leeral téere bi di alquran li qawmin ñeel ay nit yaalamuna yu xam man na gis nga téere bi ñi xam dëgg-dëgg ñoo ci mën a jëriñu su nit bëggee jëriñu alquran day xam man na gis nga borom xam-xam yi ku ko liir rek daa tuub ku ko liir tuub alquran bi dafa lancé défi ñëpp gis ngeen ginnaaw événement 11 septembre da ngeen dégg ñu ne alquran dafa manqué États-Unis d'Amérique chaque jour gaa yaa ngi daw di song alquran ba téere yi di manqué ndax loolu moo lay wane kàddu yàlla la sunu borom ne ittabi toppal yow jullit maa uxiya ilayka la ñu wàcce ci yow dee la ko muy wax yu min rabbik mu bàyyi koo ci boroom ittabiya toppal yow sayyidina muhammad maa la nga xam ne uxiya ilayka dee nañ la ko muy wax yu min rabbika mu bàyyi koo ci sa boroom lii dafa leer nañ mooy waroo topp lenn lu dul alquran waaw loolu la la yàlla wax jàngeen lu jeex ittabiu maa unzila ilaykum min rabbikum aaya yooyu du jeex ittabi toppal yow sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla moo ko jox ndigal ne ko na nga topp maa la nga xam ne uuhiya ilayka dañ koo wax yu ci yow gis nga kon amoo droit topp leneen lul wax yu xoolal tey li ñu topp dëkk bi lan moo tax Sénégal kuréel yi bëri yoon yi bëri tarixa yi bëri jaamu yàlla yi wuute façon yi wuute wuute wuute ba wuute ay façon laa ilaha illallah yu bokk lu tax est xam ngeen lu tax ñàkk a topp wax yu waaw mos naa dégg benn jàkk benn waaye ñëw rek commencé noot allahu akbar allahu akbar benn paan nangu micro bi ne ko looy arabal nii ñun xamuñu loolu noonu la lay wax arabal te noddu màkk yi mooy lan ñu nekk ñu màkk ah ñu nekk ñu màkk da nga koy dégg yenn saa yi même boo ne asalaamualeykum wa rahmatullah ñu mu yar abal ni asalaamualeykum rek da laa wax ngay gars yi di la xoolal ay saa yow waay waay waay arabal ni ndeysaan mais foog ñu arabal foog ñu arabal bu buñ déggee suñ diine foog ñu arabal buñ ko déggul nag mooy kon dañuy jaxase rek def lu neex kon ittabi toppal ma uhiya ilayka la ñu wàcce ci yow loolu la ñu wàcce ci ñun alxuraan kon jullit amul droit topp leneen lu alxuraan jullit su topp la alxuraan rek day alk day réer te day sànk tey ba ñu gëjee topp alxuraan la ñu am problème problème bi ñu am yëpp jëlewuñ ko fenn ci lu dul ñàkk topp alxuraan jeex na bu fekkoon ne tey nit ñi ñor nañ ba noo ngi topp alxuraan kon dëkk bi du mel ni ndax li alxuraan di tere rek lañ di def li muy digle kenn defu ko koo wax mu ne alxuraan dafa métti sariya dafa métti barki démb rek ci kër ayib laa toog guddi ndeysaan ndax fa laa fanaan xam nga dafa am ay animateur yoo xam dañuy ubbi seen rajo yi waa jàng naan sariya dafa dafa dafa yaraax sariya dafa yaraax boo ñëwee Dakar moom da ngay dégg sariya dafa ri tax yàlla kese kese dafa ri tax foog yàlla ak yéen saa nga ne ku ne gis nga dee leen takk xarfa fuufa ku fi bañ xarfa fuufa xarfa fuufa dana la fuuf da nga koy dégg dee leen takk gàllaaj gàllaaj ci la bokk gàllaaj bokkul ci diine ku takk gàllaaj doo jullit ku takk gàllaaj doo jullit génn nga ci lislaam ndax ku takk dara yonent bi nee na yàlla dina la bàyyi ak li nga takk man allaqa tamimatan faqad ashraka yonent bi ne ku takk gàllaaj bokkaale nga beneen bi mu ne man allaqa tamimatan fala atamma allahu la ku takk gàllaaj yàlla bu yàlla defar say mbir gàllaaj lan lay jëriñ ci yow lu muy jëriñ ki takk gàllaaj li mu koy njëkk a xañ mooy dootul am ci yàlla kóolute dootul wóolu yàlla gàllaaj gi lay wóolu boo doon sangu nga du wékk ndombo yi nga génn solu dugg ci sa oto nga daw 2 mètres nga fàttaliku ndombo yi fàtte naa ko fi ma doon sangu nooy def da ngay def demi tour benn directeur benn directeur u service d'hygiène moo ma ne oustaz ma ne ah mu ne ma xam nga kañ laa bàyyi takk gàllaaj ma ne ko déedéet mu ne damay doon sangu ma teg gàllaaj yi mu ne gàllaaj yi ma yoroon dëpp na 30 mu ne ma teg ko ma sangu ba pare ma solu ma teg ci sama tëni mu ne ma jël sama oto ma daw ba ci sori rek mu ne sama xel dem ci gàllaaj yi mu ne ma def demi tour ma ñëw ba ci bunt kër gi ma taxaw ma ne waaw man est ce que man gëm naa yàlla wala gàllaaj yi laa gëm mu ne ma continuer dawal oto bi xëy keroog laa bàyyi gàllaaj yi takkaatuma ko xanaa xamoo boo takkee téere doo am confiance ci yàlla te yàlla nga war a wóolu wa ala llahi falyatawakkalu yàlla ne na bu dee jullit ngeen gëm ngeen yàlla na ngeen wàkkirlu ci man fa ala llahi falyatawakkalu in kuntum muminin te yàlla wa man yatawakkal ala llahi mbokk yi keroog ba yàlla di sëbe ibrahima ci biir safaras ibrahima man ngaa laaj la tak wuy la ma Ibrahima ban ndomb la takkoon ban cëwri la takkoon bi ko yàlla di wax qul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim Ibrahima ban téere la takkoon ba yàlla di sobe Yuusuf ci biir teen bi ban téere la takkoon ba yàlla di sobe Muusa ci biir géej gi ban téere la takkoon xam nga ban téere lañ takkoon ñoom ñëpp inna ma'i rabbi allahu akbar gars yi ne Moussa tey nga dee Firawna ngi nii di ñëw tey ñu dee géej gaa ngi nii sunu ginnaaw bu nu duggee lab firaaw naa ngi di di ñëw bu ñu reculer mu rey ñu Moussa ne leen déedéet déedéet ñu ne ah mu ne yàlla mi ngi ànd ak man inna ma'i rabbi loolu ñëpp a ko war a gëm yàlla mu ngi ànd ak man waaye maa la saf su Moussa toogoon foofu naan anam sama ndombo yi xaaral ma seere ndombo yi ah xaaral ma seere wala seen mbër yi balaa ñuy bëri dañ leen di may ñaata temps ñaata ñaata temps lañ leen di may temps yooyu lu ñuy def ah di diwoo di takk di sotteeku di lu nekk ñu def te ay feni kese la dara du dëgg li ngeen yaakaar ne affaire yooyu ñuy takk ak moo tax ñuy daaneel dara amu ci du dëgg ñaata nit ki la mbërëb la sëriñ am di ko demee yaay daan bu fen mu dem yéene ko ba ci kaw ne ko rul ci suuf mu ñibbi alors naa dem sëriñ bi ne ko yaa mën a fen yow waaw damay dama dama koy jéem waaw gis nga mu ngoog te te te takkul gaalaaja waaw yàlla mooyoon dëgg suñu jumaa ji rek fii nii lii ngeen gis toj la fa tabax bee benn waaye ñëw fekk na ma tabax mu jox ma ngandum lettre bu am suuf mu ne ma sotti ko ci sotti ko ci rek affaire baa ngi nii gestul foofu ji ginnaaw mu ngi foofu ma teg jógal taxaw nga génne ko mu ngi foofu ma teg gis nga ko mu ngi noonu ma teg foofu ci kaw mu ne mu ne fële laa demoon jëli ko benn dëkk sot mu ngi nii gis ngeen ci laa ko teg xam dugalaatal foofu mu ngi nii bàyyil ba guddi guddi nga ñëw nga suy ko ci sànq lan la ma wax mu ne ma da ngaa dëgër bopp nee naa la nga dem utal ma juróom-ñaari xeer bi man ana yàlla ana yàlla ba ngay wut ay xeer ak ay suuf ana yàlla mi moom xeer yeeg suuf si ana yàlla mbokk yi allahu akbar sunu borom ne topp leen li ma wàcce ci yéen loolu la bu ngeen ko toppee noppalu mu ne laa ilaha yëg leen ne amul kenn kuy yàlla illaahu ku dul moom yàlla kenn kese la amul ñaar amul ñett du ko bëri yàlla kenn la laa ilaha loolu la tukuloo ni naan dewetelu ala illaa huwa sowana kankotan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko dina nekk njëriñ ñàkk koo jaamu nekk lor illaa huwa kudul moom yàlla waaw loolu mooy pas-pas bu wér mooy yàlla kenn la dañ ko war a kennal am na benn waay bu nekk ci internet bi tudde mbooloom daaray kennal yàlla dana dëgg de kennal yàlla yàlla dañ ko war a kennal yàlla du ñu bëri yàlla kenn kott la xamul moroomam allahu wahidun ndeysaan sama oustaz yal na ko yàlla yërëm ci weeru koor lañ nekk yal na yàlla sëmbërtal yërmande yàlla ci kawam yërmandeem ci kawam tàbbal ko aljanna élection yi am élection mu woo ma ñëw mu ne ma Saïd ma ne ah mu ne koy wotal ma ne ah maa ngi xool de mu ne ma man de waa jooju naan allahu wahidun moom laay woteel du ma fi romb ku naan allahu wahidun may woteel keneen même bu dul gañe moom laay woteel du ma fi gis kuy wax allahu wahidun ma romb ko di woteel keneen loolu mooy pas-pas bu wér mooy chaque jour xam nga fooy far mooy ku la gën a jege yàlla waaye yow nga xam ne woteel waajoo xam ne sa waay moo fi indi baar yi mooy jox jigéen ñi carte dem leen ngeen jaay seen bopp ma naan yàlla li mu bëgg du fi am kooku yow yaa yow yaa ko tere samp diine yow la ci nga bokk moo tax ñun ñëpp am nañu responsabilité ci élection yi ñuy def ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ñuy wote moo tax bu ñuy wote nañ seet ku baax surtout nag gis ngeen am na benn kasetu maam Abdou Aziz Dabba bu muy wax yéen assemblée bi na ngeen xool suñ leen indilee dara na ngeen xool lu ngeen ci am ëllëg amaam Allah da ko wax ba bari xëm yuuxu xëm keroog kaset bi foofu la yem loolooy dëgg jullit lépp lu muy def day xool ëllëg lan la ko nar a jural ci kanamu boromam ëllëg waaw Sénégal dañoo gëmul yàlla rek bu fekkoon ne ñun ñii ñëpp li ñuy woote ne ñun Sénégal ñaata million lañ 14 ñaata pour cent musulman la ah 95 pour cent musulman kon cent yi lu ci des cinq personnes kon ñun ñëpp buñ gëmoon yàlla kon dëkk bi du mel nii waaw ci ñun ngay gis jullit yi naan sàngara yi ah jullit yi nga xam ne ay agresseur lañ jullit yi nga xam ne dañuy jaay seen bopp jullit yi nga xam ne dañuy jaay xoolal léegi carte bi carte football bi football bi paa yi sax dañuy carte léegi ndax Messi xoolal football bi ni ñu ciy carte waxuma dara sax mais télévision yi léegi dañuy carte nii wane ko en direct ñuy carte léegi kenn weddeeti ko ñëpp nangu nañu carte benn waaye nee nag loterie nationale bi mu duggee Sénégal sëriñ yëpp dañ ne lii daa araam kenn du ko fi def loterie nationale carte la te carte dafa xaraam te carte ci bàkkaar yi mag yi la de du ci ndaw yi de da ngeen yaakaar ne carte yi ngeen def yenn saa yi sax ma romb booy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy tiire lan ay tanks di carte ma leen yéen a ngi yar seen bopp ci musiba de lii ngeen def nii carte la même match ñaari koñ ak koñ ñuy football loolu carte la 5000 5000 carte la yenn saa yi nga gis paquet war nga paquet suukar pon meew pon meew loolu carte la xam ngeen lan moo dul carte mooy man maa indi sama paquet war nga indi sama paquet suukar daan ne kaa leen ngeen football ku gañe ma jox ko ko loolu du carte amma ñii bu ñu indee ñii indi ñu daje ci terrain bi carte sa ñëw na leer na même bu fekkee da ngeen di booloo toog naan aram na kon kay booloo leen naan rek balaa ngeen di football benn yoon su amee bii gañ bii perte rek carte ñëw na loterie nationale bi mu ñëwee Sénégal sëriñ ñëpp dañ ne daa araam xam nga Senghor dafa muus moo rawoon suñu sëriñ si moo leen ëppoon bopp mu daal di jël ay daayira dugal ko ci biir loterie nationale daayira tijaan daayira murit daayira xaadir daayira daayira daayira bu bu dara jotee rek mu daal di jël un million mu ne da kii baa ngi ne bu nga demee nga ñëw sëñ bi ne ñun ñooy ñun ñooy waa Lonaas suñu suñu kii ngi ni un million la ñu ne ah macha allah jërëjëf waay waa Lonaas lan la leen loxo yi gis nga kenn waxatul araam na gis nga piège bi wala fi ne nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kers waaw loolu la mais si ñëpp ko bañoon mais après ñu sos ci ay daayira di leen jox ay kaar di leen jox ay enveloppe waaw enveloppe un million neexul delloo de boo ci amee juróomi enveloppe boo ci amee fukk loolu neexul delloo moo tax yàlla na yàlla suurloo won ñu dëgg yàlla won ñu boppam ba boppam dongu doynu leneen duñ doy lu dul moom sunu borom nee na wa arid anil mushrikin yow muhammad alayhi salatu wasalaam laa taltafit ilayhim bul gees wa arid dummóoyul ndeysaan dummóoyul ñan laay dummóoyu mu ne bokkaalekat yi gis nga sunu diine du mën a wér loolu dañoo weddi bokkaalekat yi bàyyi leen Ibrahima loolu la defoon Ibrahima bi mu ñëw fekk ndeyam ak baayam di bokkaale daf leen lancé défi lancé leen guerre daf leen déclaré guerre lan la leen wax wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal bagda abadan mu ne hatta tu'minu billahi wahda wala du loolu aaya la bàyyi mu ne mu ne ko déclaré naa la guerre ba ci kanamu yàlla feeg yaa ngi bokkaale maag yow duñu duñu jaarandoo taal bàyyi ñu ne ko boo bàyyi li ngay wax dinaa la sànni ay xeer ba nga dee la in lam tantahi ya ibrahim la narjuman nag waa jur nii maliya génnal sax nag ñu daal di koy génne moom la njëkk a génne ne ko jëlee say bagage mu daal di génn moo tax gis nga yàlla saa yu ñu la génnee ngir moom yàlla fay la saa ñu la génnee ngir yàlla yàlla du la bàyyi nga wéet jamais moom moo lay wéetali mu ne waa arid moo du mooyul bul geestu bul bàyyi xel mukk mukk mukk anil mushrikiina bokkaalekat yi wam di fi tariqi daawatik doxal jëm ci sa yoonu woote bul bàyyi xel bokkaalekat bokkaale baaxul mbokk yi bàkkaar la boo xam ne yàlla du ko baale moo tax bi ngeen di jàng ñu leen di firil lan mooy al islaam ah ba leen waa ji waxee al istislaamu lillahi lan la ci teg wal inqiyaadu lahu bi taa lu mu ci teg wal baraatu min ashirki wa ahlihi da ngeen di bàyyi bokkaale ak ñi bokkaale yow boo bàyyee bokkaale da ngay bàyyi kii bokkaale munoo bàyyi bokkaale ba pare am xarit buy bokkaale munul nekk waaw boo bàyyee bokkaale da ngay bàyyi bokkaale kat yi da ngay bàyyi xarit jabar doom mbokk buy bokkaale da nga koy bàyyi ndax bokkaale kat jëfam daf ko perte yàlla wax na yonent yi sax buñ bokkaalee yàqule yàlla wax na yonent yàlla muhammad soo bokkaalee yàqule kon keneen su bokkaalee nag te bokkaale daa sew de ashirku axfa min dabibi nam la yonent bi mu koy melal dafa ne xorondom wu ñuul di dox ci xeer gu ñuul ci xaaju guddi ndax di nga ko gis noonu la bokkaale sawee moo tax nit war ko mooy tëndiku ci ay jëfam ak léppam lépp moytul bokkaale gis nga mooy li may wax ni nga jékki-jékki xeex ñëw fii rek wala histoire am rek benn waay ñëw na la gis nga xeer bi nangam ak nangam rek sa xel topp la ndax bëgg victoire bëgg ndam nga jël xeer boobu wala nga jël suuf soosu wala nga jël bokkaale nga ku la sax dox na yàlla moo lay testé di xool ndax yow li ngay wax dëgg la wala du dëgg ah mu nga bokkaale baaxul wax naa ko misaal naa ko fi ñaari yoon kenn ci ñun fii tey bu wooree ngoon bay dog sa soxna génnee la pot soow bu sedd guy ñu def ci lépp mu sedd ba waaye sa doom daal di ci def benn toq saw ndax di nga ko naan pon daalu saw toq saw toq toq doo naan lu tax lu tax doo ko naan di nga ko naan waaye toq saw laa wax toq bu ndaw même boo ko bëggee naan sa xel moo koy bañ bu doon toq deret nag boobu gën a doy waar noonu la bokkaale mel wala lii toq la les pot la wala ngay lekk gerte nga yëy gémmiñ gi ba mu fees nga yëy benn bu nëb da ngay wan wala nga yàbbi ah lu tax nga ko yàbbi parce que benn bi moo yàq yi ci gémmiñ gi yëpp da nga koy yàbbi noonu la bokkaale mel bu bu takk ak jëf rek su ñëwee fekk ngay def rek da koy yàq moo tax mooy tëndik ko ba yonent bi saa salaam danaan ñaan yàlla na ko yàlla musal ci bokkaale bu mu yëg ak bu mu yëgul ndax mën ngaa bokkaale sax te doo ko yëg moo tax yonent yàlla yàlla na musal ci bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul wa arid du mooyul mooy tëndikul bàyyi fi anil mushrikiina way bokkaalekat yi xanaa xamuloo ne walaw shaa allah su neexoon yàlla ñii ma ashraku du ñu bokkaale bokkaalekat yi su neexoon yàlla du ñu bokkaale waaye yàlla moo leen seetaan ci coobareem yàlla mooy tester seen xol yi ndax gëm nañ wala gëmuñu moo tax bi affaire yi méttee rek ndeysaan léeg nga ñëw ci jàkka ji ci sàppe yi de sàppe yi nii ngeen fi nga sës ak nit seen mbagg yi nga gis sa sa loxo mbagg bi daal di riisu ci ay ndombo wala léeg-léeg saa yi ngay akolaat benn julit nga nuyu ko ni mu nuyu la nga ni ni mbagg li rek nga daj ay ndombo ci mbagg yi fii dal loolu musiba la ay ndombo ay xaaw ay kànnaar ay petaaw ay buum waaw ay lappetaaki loolu gars yi doon wax waa ji dem tooñ ba pare ñu koy wax mu naan man da- dama takk lappetaaki waa ji ne ko kono a haɓɓaani daasetaaki waa ji daal di dàq fas bi rek daal di këf tube yu tànk waa ji rek départ ne ko du lappetaake nga takk lii moom daasetaake moom takk takkoo ko waaw daasetaake mooy kenn du la diri yooyu yëpp ay musiba la yoo xam ne tey mu ngi fi ci biir dëkk bi ay gàllaaj yoo xam ne day yàq biir ay gàllaaj yoo xam ne oto bi du tàkk xam nga waa ji lu ma wax mu ne waat naa ci yàlla boo ma joxee juróom-ñaari xeer waa ji dinaa ko weer ci kaw lalam doo du dund du dee dootul taxaw fii wala ma waa ji wax de ki ma doon wax ki ma jox suuf si tey sax wax na ko mu ne da ngaa dëgër bopp nee naa la jox ma juróom-ñaari xeer dama nga wuti xeer xaw ma lan nga ñëw waa ji dootul taxaw fii dama koy weer ci kaw lalam dootu fi taxawat léegi la loolu kooku tey moom bu fekkoon ne moom la du dee dem defi ko noo ma tax gis ngeen dëkk bi da ngay gis ku wér ba caagu dof dañ ko xërëm waaw nga gis ku wér ba càgg feebar di néew yi kenn xamul lan la di néew yi rek ba xëy dee waaw nga gis koo xam ne day xëy di jeex di jeex di jeex ba xëy dee nga gis koo xam ne day xëy rek sawaay tàggalikook sa gom dugg ci yu kenn xamut di sàcc di naan sàngara ndeke yooyu lañ la lañ la lañ la lañ la tourné yooyu lañ la tourné wala nga gis koo xam ne lu ñu koy def fu mu toog rek day ngelawal pëw pëw pëw pëw pëw rek da ngeen ko weddi nga gis koo xam dañ koy defawaan fu mu toog day saw day saw rek maanaam loolu mooy dama koy toroxal am na ñoo xamante ne xam nga lu ñu leen def doo gis dof boo xam ne da ngay nekk ci àll nga gis dof buy dox rek topp oto yi ñooñu ci ay pitax lañu def lañu def lañu leen xërëm ci ay pitax su pitax bi taxawee mu taxaw su pitax bi jógee mu jóg
joxoon nañ ko benn jigéen ñu ngi koy kii dañ koo def nii ko nekkee nii li mu nekkee moom mooy wóorul mu gis ànd bi.
waaw loolu lu mel noonu xam nga ñan ñoo koy def nga am jabar ngeen am problème mu ne la damay tas dem toogi seen kër nga ne ko doo tas ngeen xëccoo këtt këtt dem tribunal tribunal tas sëy bi nga dem xërëmiku dootul mën a téye sërëm day wër rek di dem di njaaloo wala musiba boobu bismillah
oustaz noonu ñuy liggéey noonu charia naka la wax pour fañ noonu naka la ñuy def si charia waaw loolu incha allah bu ñu bu ñu jeexalee ñu ñu tontu ci loolu question yi incha allah ñu koy denc ba tafsir bi di jeex bu soobee yàlla sunu borom nee na wa arid dummóoyul anil mushrikina bokkaalekat yi mu ne walaw shaa allahu su neexoon yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon gaa yii du ñu bokkaale ma ashraku walaw yasha allah su neexoon yàlla kese adamu israakihim lima qaddaru an yushraku idan fala tahzan alayhim bàyyi leen ñi nga gis ñuy takk ay gàllaaj yàlla teste seen ruu yi mu gis ruu yi baaxul moo tax mu bàyyi leen ñuy bokkaale munoo wax ba duñ bokkaale da ngay wax ba sonn waa ji ne la ah saay bàyyi ma rek ma takk sama téere bi bàyyi ma rek ma takk nga wax ba sonn mu ne la bàyyi ma naan nga wax ba sonn mu ne la bàyyi ma diw bàyyi ma rek
dégg nga.
waaw mu ngoog kon li nii lu dajji la loolu ñu naan mazhab alqadriya doomu aadama suñu borom subhanahu wa taala am na benn ngir gu tudd mazhab alqadriya ñoom lan lañ wax anna af'al al ibad lam tuqdar alayhim wa innama hum alxaaliquuna laha bi duni iznillahi wa iradati ñoom dañu ne doomu aadama lu mu def rek moo ko defal boppam du nammeelu yàlla du coobare yàlla doomu aadama lu mu def rek jëfam bu jëfi boppam la nit ki lu mu def rek yàlla la neex même kii bokkaale yàlla la neex mu bokkaale loolu lañ naan machia dafa am yàlla bi mu bindee jaam ñu pare dafa coobarewu ci ñoom yenn saa yi ñu jàng aaye yahdi man yasha wa yudillu yàlla mooy jubal ku ko neex mooy sànq ko neex yàlla bi mu ñu bindee ba pare daf ñu may ay jumtukaay bàyyee ñu ay jumtukaay yoo xam ne suñu utiliser jumtukaay yooyu dañuy jub dañuy baax waaye buñ ko utiliser wul dañuy dañuy sànk kon ñu jóg pour utiliser jumtukaay yooyu bi leen yàlla dimbalee ñu nangu xam loolu ñun dañuy baax waaye ñeneen ñi bi leen yàlla seetaanee jëfandikoo wuñ jumtukaay yooyu dañuy sànk kon xel nopp bët loolu ñu naan xawaasul xams ah xawaasul xams du loolu la cinq lan ban ak ban la yan ak yàlla
bakkan la waaw waaw ak bët waaw waaw ak loxo mu ngoog gis nga yooyu ay cër la yoo xam ne yàllaa ko may doomu aadama pour mu gindeeku ci bët pour lan la pour gis nopp gémmiñ loxo pour laal wala doomu aadama day laal dara rek mu yëg ne dafa rattax wala dafa ñagas wala dafa wow wala dafa nooyi mais bi nga ko laalee li lay sentir loo loolu fan la nekk ci yow li lay wan ne lii dafa dëgër dafa wow koŋ lan moo la koy lan la fu mu nekk ci yow fu mu nekk bi nga xoolee gis li tax nga gis fu mu nekk bi ñu waxee nga dégg li tax nga dégg fu mu nekk bi ngay yëkkati sa tànk bi di dox lan mooy contrôler tànk yi naan yëkkatil bii tegal bii yëkkatil bii tegal bii ba nga yegg fi nga jëm lan moo koy contrôler allahu akbar wallaay ku gëmul yàlla tooñ nga ku gëmul yàlla tooñ nga dëgg dëgg tooñ ku gëmul yàlla rek tooñ nga ku delloowul yàlla njukkal xam ne yàlla mooy yàlla rek tooñ nga yàlla du morom suñu borom nee na gaa yii di bokkaale yow muhammad alayhi salatu wasalaam bàyyi leen ñu bokkaale wa ma jaalnaaka alayhim hafiza yónniw ma la pour nga leen di garder ñoom nee na dañuy bokkaale bàyyi leen ñu bokkaale bañ dee dajeeg man tere nga leen ñu bañ wax nga leen yàlla bëggul kuy bokkaale ñoom ñu lànk ne dañuy bokkaale bàyyi leen wa ma jaalnaaka defuma la haf alayhim ci ñoom hafizan nga leen di wat yemul ci loolu sax mu ne ko wa ma anta alayhim bi wakil allahu akbar yónniwuma la ci moom pour nga chargé wu seeni mbir topp leen rek hein bàyyi xel ci ñoom lu ñu def ngay weddante ak ñoom déedéet yow dama laa yónni rek in alayka illa al balaag te waqat ballagta yónni naa la pour nga mottali mottali nga kon jeex na kon bu leen topp rek turaqibuhum nga leen di fuuglu wa taxsi alayhim amaluhum luñ def nga bind ko naan leen julli ngeen wala julliwu leen déedéet di yow yaa leen di fay di yow yaay seen borom wa ma arsalnaka alayhim wakila tatawalla hidayatahum yónniwuma la pour rek nga toog ne yow yaay occupé gaa yi ba ñu jub déedéet kon mbokk jullit yi ku jub santal sa borom ku jub gërëmal yàlla tabaraka wa taala yàlla la neex mu daal di lay jubal noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jubal ñu kon loolu mooy darsu tey assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu